baax na wala baaxul ah bon oh, ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur maa ngi sant Maodo suma sëriñ El Hadj Malick maa ngi sant sëriñ Babacar Sy ñaanal suñu xalifa général yàlla bàyyi ko fii di ñaanal waa Tiwaawan yëpp di ñaanal waa Touba di ñaan waa Laayeen di ñaanal waa Njaasaan di ñaanal waa Canam di ñaanal waa Ñese di ñaan bay ñaanal chrétien di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm suñu réew ñii yàlla na fi yàlla def jàmm may gërëm suma doom Lac de Guiers ndax man maa ngi dëkk Lac de Guiers le mot Lac de lan mooy Lac de Guiers Lac de Guiers dëkkal bu nekk ci wàllu ci leer Lac de Guiers numéro un wàllu la dëkk mais dëkkul biir Lac de Guiers dafa ñëwoon di fa liggéey di yëngu ci wàllu làmb tudde boppam Lac de Guiers mu nekk dëkk bu mag ca Nder walla tey Nder benn sénégalais du ko fàtte may dellu rek di gërëm Mohamed Ali Ndiaye yow doo complexe yow sportif au niveau sport fii la jëm war nga am combat dem jëli Gris Bordeaux wala nga dem jëli Tapha Tine wala nga dem jëli Eumeu Sène fay ko ngeen liggéey sport foofu la toll ndax Sadio Mané mu ngi dëkk Bambali mais ci wàllu métier moo tax mu dem ci tubaab yi làmb fii ak yóbbu ci boobu niveau amul sotti mën nañu ne rek boxeur bi nekk au niveau du Guédiawaye moom mooy travailler mbir mi nekk biir Guédiawaye loolu jeex na may gërëm suma frère bi. nga xam ni géej suma nijaay la suma yaay géej la sant mu sonn ci Lac de Guiers trop mais yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay yoo xam ne àdduna dox na trop trop trop en 1973 benn télévision moo fi nekkoon muy RTS am na benn jamono ma ni laaj leen nu li ngeen nuy laaj jamono ngi ñëw di ngeen bëgg ku ngeen laaj te du leen ko am loolu ñëw na. ñu ngi gërëm site internet yi macha allah yéen fu am egg yéen a fu football bi egg yéen a bu xabaar ak li mu toll yéen la tu penses bien que nag il faut ñu développer temps bi gàtt na desal nañ lu bëri dama war a wax ci suma doom ji ndax àll lu fi ñun moo di nekk te géejaway maa fi ne muy ne maa fi ne muy naka bi maa fi ne. ndax ñi ma nekkaloon ñuy samay kilifa di Double Less di Daouda Fall di Balla Gaye di Aline Sey ñooñu ba ci moom faram dëddu nañu ñu ngi ñaan yàlla jéggal te man ma nekkoon xale bi toppoon ñooñu man foo ma seen may dox rek boo ma xoolee xam ni Guédiawaye porte drapeau kon nag cër bii ngeen ma cëral ci pense bien que ni am naa cër bu nekk ci làmb fii ci biir Guédiawaye mais lamb fii la toll nga dëgër di ko war a wax ak ñëpp mais mënul bis bi ne benn suite internet ñëw ci këram mu bëgg expliquer kon wax ji day dem ci beneen dimension te champion bu mag baa ngi nii muy la dëgër nee na ko yaa mën ci mbër yi yàq sa rak ndax ñun ñëwum fi polémique la dëgër suma doom la Balla Gaye suma doom la cër bu mu am ci ñaar ñii laa ko kon maa ngi gërëm maa ngi gërëm Balla Gaye mi nga xam ni su ma nit ñi seenee may ndox naan jaww bu Balla Gaye waaye ci dolli jaww bu Lac de Guiers may ni ma gën a yitteel mooy ñi nak làmb ji muy brasser na nga ma xool G et G ma déglu na nga ma bàyyi Sénégalais yi douze millions lañu wala dix-huit millions ñu tànn la ci jox la sport bu toll ni làmb ñun nag Sénégalais yi dafa ci ñu am complexe boo demee au niveau du Chine seen karaté bi ñuy def dañ ko gérer te réew mi amuñu lu ëpp làmb cinquante yi soog am coupe d'Afrique ñu def ci centaine de milliards kon football bi dañ cee wàllu yaan mais moom nga ko tàccu leen loolu may wax rek ni Bira Sène arbitre yi ñi nga ko lamb ji na ngeen teg seen mbir ci yoon Lac de Guiers sénégalais la Lac de Guiers moo mën ci mbër yi Lac de Guiers mooy Lacadière, mon sérieux. Lacadière, il est excellent. soo gisee tey barka démb ñu def grand contre petit diggante Modou Lo ak Ama Baldé bu Modou Lo toppoon kilim yi du mën a gagné kenn ci ñun désormais ñun waa Guédiawaye programme nañu bépp mbër bu jógee feneen dëkku Guédiawaye booy dugg suñu géej gi da nga ñuy fay ndax fi la bëri di amee doole sàcc may wax rek ni ñaari sénégalais lañu si tëmbër mu yaru la mu baax moo xam ni mbër yi nañu xool moom li ñu war a moom mooy partage ànd ak nit même pas trois ans quatre ans mu nga jël sa kase jëndal ko kër tabax ko dugal ko ca waaye jooju bi mu tëdd ci bàmmeelam mu ngi jàkkaarloog Cité kon entre Cité ak Lac de Guiers ay frères de sang lañu dañuy mayante xaalis mais nag làmb ji léegi dafa am vaar vaar boobu mooy leeral lépp te arbitre yi bu ñu am complexe nañu takk seen fit xam ni combat bi du ay caaxaan du combat wu 10 millions. du combat wu vingt millions ay centaine de millions lañ leen fay li ñuy ñaan yàlla nag li ñu war a de Guiers du li ñuy wax ci li mu nar def ñun travaillé nañ ci moom ci wàllu jëmmam travaillé nañ ci wàllu boppam travaillé nañ ci wàllu xelam teg nañu lépp bu ñu yàlla dimbalee ba léegi ñu gagné ci ce dimanche bon si kàttanu yàlla Lac de Guiers dana woote waat conférence de presse ndax lii ngeen am tey yéen sud yi ngeen dal képp ko micro yi pour déglu ay kàddoom en réalité lii nag na ci mbër yi dem conférence de ci la ñëpp di ma may dellu rek di woo autorité Guédiawaye yi moom dana ko woo mais man dama koy woo ndax maa ko jiitu ci autorité yi Lat Diop yow la ñu def ministre des sports nga nekk jàmbaar sa adduna yëpp joxe rek nga xam Lac de Guiers dina la sentir ndax loo doon waa Guédiawaye ñoo la ko def na nga am mat ku toll ni ko xam ni jàppale woo ko ndawu Guédiawaye ngay jàppale ndaw yi liggéeyi ñu te bëgg nañu dem ci stade bi Lat Diop jëndal billet yi Alioune Sall jëndal billet yi Malick Gakou jëndal billet yi Ahmed Aïdara nag na nga def attention bu baax a baax ñun amuñu complexe pour wax la li nekk dañu la fal au li du Guédiawaye voté le budget ni ki jëm ci làmb ji na ci bokk ki jëm ci football bi na ci bokk ki jëm ci hôpital bi na ci bokk élève bi bëgg a voyager na ci bokk naka toppatoo lépp loolu mooy budget ñun lii ñu lay laaj du loo moom luñ la jox la ñu la séddale ko ci biir Guédiawaye kon à haute voix sa frère sa mag sa nijaay di sa lépp moo lay wax ni bisu Lac de Guiers bi da nga ci une partie yow monsieur le maire may woo leen commune yëpp Racine Talla xam ni excellent madame Kanté il est excellent mais Alaaji Malick Gakou yow mi jëloon hélicoptère dugal ma ci contre Modou Lo ak Lac de Guiers hélicoptère bi na naawaat nga jël centaine de millions jàppale ko jëndal nag yi jënd ceeb yi jënd diwlin yi jënd biir yi jàppale ndaw Guédiawaye loolu moom laa ñëw yéen autorité Guédiawaye yi nun yéen lañu bëgg ngeen falu kon nag ki lay fal daf koy fal yéen ku ci nekk mënoo fal sa bopp benn kàddante sénégalais nga yor dugg ci RDI bi dugalal ko sa bopp kon bu la population Guédiawaye falee bul soppi ku mel ni buur wàcce leen si terrain bi te dimbali ndaw yi bu fekkee ne nag je pense bien que ni maa ngi bëgg a yàgg ci bi mais maa ngi wax Balla Gaye Sa di wax euh, comment dirais-je Marley di wax guy gi di wax leader yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Guédiawaye ci Guédiawaye tax leen jóg bisu Lac de Guiers bii ku ci ne naka sañ sa ba rafet ñëw bi ñu dar ko mu bëre daan ci kàttanu yàlla. maa ngi leen lancé a appel ndax sa kilifa wax na dégg nga muy Maxime Bergane ak technicien daal cité bi ay borom bopp mais la déggee ay borom bopp ay kàngam ay nit yu conscient ay nit yu am niveau sur le plan des sports ñoo dal la déggee kon ñu ngi lay xamal nii la déggee dana indi jom indi ful indi fay cité ku la xam xam la ci jom xam la ci ful xam la ci fay dawal gauche dawal droite bi def cinq minutes ñu ngi ñaan nag ci dara ñu yonent bi yàlla sutura la dëgër maa ngi woo waa Waalo Waalo yëpp maa ngi leen di woo ñu jàppale la dëgër maa ngi woo waa Casamance maa ngi woo waa Guédiawaye maa ngi woo ñëpp ci gisu la dëgër bi nag nit la dëgër amul tàkki la la dëgër supporter yi conscient yëpp ñu mën a def stade ak ñi toog ci kër gi ñooñu la dëgër la ñuy toog mais maa ngi wax waa jàmm kenn ñu ngi leen di dalal ci stade bi ci jàmm ndax Siteu man aw ma droit di ko wax lu ñaaw ndax man jiw fa laa man dama war a lu luy defar man nag ma xamal ne du ma ñëw ci bis bu ma woowul bari na mbirum géejawa yi xewle damay toog rek gis ni ñu ngi def open press wala ñu ngi def leneen mais bépp mbir muy bëri ci biir géejawa yi maa ngi lay ñaanal lakk na moo ma woo ma ni ma papa damay def suma point de presse dama bëggoon nga teew ci mooy suma teewaay bépp kàddu bu mu fi yëkkati mu ñaaw nañ ma ko jéggal bëgguma lu dul lu baax kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal jërëjëf jërëjëf. macha allah kàddu yi yaakaar naa ne mat na